والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته خمنا دفن مني لو نيخ دو دوي ñaari yi daje doy na sëkk ndigal ba ñu jëlé ci kakaru quba sayyid cheikh ahmed tijani mu yabal sunu way juro bop cheikh alhaj mali mu ñëw tok andak sunu yaay yu bax yi andak doom yi boppam yii ak sunu bokku pas-pas yi fi daje ak sunu bayu daayire ak sunu yaayu daayire bu mel ni kon li doon jaadu rek mooy ñu jox ko mu joxe ñaan ñu ñaan dem ndax yiw yiw rek la tudd waaw te ki moom guddi gi mu yonent bi muhammad sallallahu alayhi wa sallam li ma man waat mooy ñun mënuñu séddu ci guddi gi ci leeram te jaarul ci loxoom waaw kon nag boobu rek moo am solo kon nag ñu taataan ci guddi gi ci teewaayam moom mi bàyyu ñépp ñëw ci turam ñaañ ci barke Sëriñ Babacar Si lépp lu ñu ci yaakaar ci leer ci barke ci yiwu àddunaat bu àllaaxira yal nañu ko yàlla defal fa tabaarakallahu xam naa dafa bëgg yeewi ko waaye ñaari baat ñett ndax li mu leen waxit moo am bi ñu jógee géejawaay ak léegi lu fi nit soxlaati dégg ndax am na ndax boobu mooy ekool bi mëtale yépp yoo tolloog rekk nag li wolof wax ku wal mburu tuddul dëkk am tudd nañu gàmmu rekk foog ñu wax ñaari baat ak ñett waaye liy jëriñ moom wax na leen ko mu mel ni népp dafa am lu bindikat yépp d'accord moo di ku day ni yonent bi muhammad sallallahu alayhi wa dundam fees na ak njariñ njariñ yu nga xam ni ku ko bind ci këyit walla nga taalif ko ci téere daa am ñoo lor waaw xam nga lu tax siira ak taarix la bind biographie ak histoire la ñoo bind yonent bi dundam du biographie du du dundam àdduna ak àllaaxira bu ñu boole la sol ko ci moom koo xam ni nag sa dund àddunaak àllaaxira bu ñu sol ci yow la juddu dootu la yokk dara dee dootu la wàññi dara koo xam ni nag juddu dootu la yokk dara dee dootu la wàññi dara bu ñu bëggee jël sa juddu wutal ko bis bu ñoo fàttaliku walla ñu jël sa dee wutal ko bis bu ñoo fàttaliku ñu lor ñépp ndax at ba at lay doon te am na ku nga xam ni yiw wi mu am duñ ko war a vivre au jour le jour ba ca des moo di yonent bi sallallahu alayhi wa dundam jikko yu tedd yi mu àndal naam ci àdduna lañ ko nafe waaye mu di lay yëgal ni la jikko yooyu bu ñu ko nasee ci àdduna it àllaaxira du ko nocc parce que ki ko nasa tax waaw parce que yonent bi mook yàlla kenn ku ne dënga delloo njukkal sa moroom yonent bi li mu delloo yàlla njukkal mooy ñi ko naw ñépp ni ko ni nga mel fu jugi mu ni addabani rabbi fa ahsana taadibi ki man te léppam di yiw moo ma yar yarin gu jëkk gi motax ma am jikko yu ni nii lay deg baat ba momit it ko njukkal niko way yewit bul fàtte ni wa innaka la ala khuluqin adim du yow rek laa masa yar kon nak ni yar bi anto ci yow antoogu ko ci ñëpp kon yewit sak la ci man ma yar la nga mel ni nga mel looloo tax moom yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dundam yàlla def ci génne li ñoo tudde espace ak temps ndax bëggul waa démb waat ni am nañu ci yonent bi lu waa tey amul bëggulit waa tey waat ni am nañ ci yonent bi lu waa ëllëg amul ba tax waykat yi seen way yooyu ngeen di dégg kii rekk ko yeeyoo démb nii tey nii bërki démb nii tey nii kooku yonent bi rekk ko moom ba ca desit yaay démb yaay tey te yaa xal di ëllëg boobu it yonent bi rekk a ko war a man moom ndax moo jariñ ñëwoon démb moo jariñ ñi ci tey te moo fas yéene jariñ it ñay ñëw ëllëg waaw tax yàlla ñaan pour ñu bañ a jël yonent bi muhammad sallallahu alayhi wa sallam moombale ko rek jullit ndax mbax gi mu yor ku dul jullit itam mën nga cee jël sa cër ndax ku ko soxlawul ngir nubu wayit soxla nga nite gi ci moom te nit lu mu def lu dul nite yàq na ko waaw ah. moo tax ku soxlawul yonent bi ngir nubu wayit soxla nga ko ngir nite waaw ah. looloo tax yàlla wax ni ku soxla jiwu jikko mën nga ko wutee ci yonent bi waaye li ci neex ñeent ñeenti catégorie yàlla xoolal leen boppam ni yonent bi ñeenti catégorie yooyu ku ci soxla nga tànk ko jiwu jiwu jikko jox ko ko mu ni ko kan muniko ni catégorie bu jëkk bi muniko moy ñi nga xamni seen jom yépp moy laab ci biir laab ci biti fas yéene wuyoo ñoo xam lu tak bu ñu soxlaa jiwu jikko dox len ko ndax fiihi rijaalun yuxibuuna an yatatahharu te wallahu yuxibu almutatahirin te moom mooy ramza tahaara moom yonent bi kon dana jaadu bu ñu soxlaa jiwu mu war leen ko mën jox mu ni ko ñaareelu catégorie bi mu ni ko mooy ñi may yëg ni fas nañu yéene yéene bi ñu fas moo di li ñu wóllëranteeg yàlla ak yonentam bu leen ci dund dee fekk ak bu leen ci dee dee fekk yépp fas nañu yéene wóllëre bi du fecceeku yàlla nag ni ko ñi ànd àgg ci sincérité ba foofu bu ñu soxlaa jiwu jikko jox leen ko te mooy almuminin mu ni ko muminina yan mu ni ko ñi nga xam ni ca seen biir am na ca rijaalun صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا waaw mu ni ko ñooñu bu ñu la soxlaa ci jiwu jikko jox leen mu ni ko ak ñetteelu catégorie bi mu ni ko ñetteelu catégorie bi mooy ki am te li mu am lew ko te bu sañ bu ko neexoon téye ko waaye xel mu dal ci boroomam